Holal, Côte d'Ivoire seen guerre civile c'est des centaines et des centaines de personnes ñoo ci décédé ñu jàpp Gbagbo yóbbu ko accusé ko tëj ko pendant des années là Haye Hollande après nous le verrons. après mu ñëw ñibbi si Côte d'Ivoire après ki ko tëjoon ah Alassane Ouattara ak ñoom ñaar ñu lan ko ñuy photo xakata e leur retan fore demb libéré nañ prax 176 détenus ou ñun ñoo xam ne ñaan jàppoon depuis des années dañoo nekkoon ay partisans wu Bagbo quoi comprendre donc voilà justice la bo xamante ni moo comme bi ak opposant bi jubo nañ léegi automatiquement ñu la dañ lan di libéré quoi fekk justice bu honnête bu sérieux bu bu bu bu condamné nit ci lu leer la ko condamné quoi booked for a budget apa? quoi comprendre nga uh, amul dara amul ban, warlan, lebar apa? quoi même accusation yi leen accusé woon bu fekkoon bu fekkoon vraiment dëgg la mu ngi valider ba léegi quoi comprendre donc policiers yi eh, dañuy foowee nit ñi quoi Bagbo ak Waterep ay haram lah. parce que à ils sont là pour leurs intérêts quoi te boo seetloo ah boo seetloo boo amul sens Momo est remplacé à Ouattara, quoi. Donc Ouattara va partir calmement, quoi, passer sa retraite en France, quoi, dans la paix, quoi. Après, Tarado, de Quadal, pas à nous, tu parce que encore le ñu signé parce que le gars ni mu les intérêts de la France en Afrique surtout foofu dëkkam Côte d'Ivoire amul benn africain bu ko mën a bu mës a représenter les intérêts de la France Si si boobu anam à part Macky comprendre donc Macky Sall bu ñu amul sens tamit dara France la France va le protéger tu comprends après keneen ñëwaat fii tamit defaat ñu la même sos quoi on va continuer comme ça quoi pendant l'éternité fekk dëkk da jël say responsabilité Macky Sall gis nga bi bi soulèvement bi amee noonu ah, buñ continuer woon trois jours Macky abal Sonko mu ne nañu arrêté ñu arrêté quoi te loolu docteur Dieye bi nekk noonu moo ko moo pomp loolu ci nopp yi comprendre loolu doo dafa amaat waxoon naa leen waa yow il faut se préparer effectivement en ce moment la nekk ci arme biir gendarmerie ak police la fa nekk ci logiciel la fa nekk ci matériel renseignement bi moyens yi ñu am en ce moment ku jóg ñu dal sa kaw man maa la ko wax doo ay caaxaan xam nga sama live bi passé dama leen jox ay numéro Macky Sall trois numéro mépp laa leen jox jox leen jox leen ay numéro ay Alioune Sall ay personnalité yu bëri bu ngeen xoolee indicatif numéro yooyu noonu pourtant c'est numéro mobile mais ñoom rek ñoo ko am amul beneen sénégalais bu ko am boo xamante ne nekkoo ci état ma wax leen en même temps ne Israël ñoo protéger système boobu parce que Israël ñoom ñooy gérer système sous écoute bi état bi di utiliser. wax naa lan ko wala waxuma lan ko wax naa lan ko sama live bee passé teguñu ci deux semaines lañ ca teg ngeen dégg affaire logiciel boobu noonu ah bu def dégâts partout la le monde sel boobu ma turam ci sama live boobu tey du ma tudd turam pourquoi boo tudd turam moo tëggoo ci sa système boo tudd turu logiciel bi bu fekkee sa ordinateur microfone bi mu ngi activé wala sa téléphone microphone mu ngi te la plupart par vingt dix neuf pour cent téléphone yëpp seen micro day active vingt quatre heures boo tudd turu logiciel bi muy installé wu ci sa téléphone est-ce que comprendre soit ñi nga xamante ne am nañ logiciel te c'est des millions de dollars la logiciel bi déjà am na option bu ñu mën a duggee numéro téléphone ñu ñu ñuy contrôler téléphone boobu noonu c'est-à-dire caméra bi lépp lu caméra bi jël caméra bi même bu tàkkul logiciel bi da bi da koy taal lépp loo def ci téléphone bi photo lépp logiciel bi da koy gis loo bind message ak lu dugg ci téléphone lu fa génn lépp day contrôler téléphone bi comme pas possible est-ce que comprendre ngeen donc ñun lu Macky Sall nekk suba ba ngoon xam nañ ko waxuma la Sonko mais képp koo xamante ne personnalité nga biir Sénégal wala képp koo xam ne siw nga biir Sénégal nga xam ngay activiste yaa xam ngay journaliste yaa xam ngay politicien yaa xam ngay gradé bu nekk ci armée bi c'est-à-dire les généraux même comprendre ñëpp ñu ngi leen di sous écoute Macky ñëpp lay déglu tout le monde xalif généro yëpp yëpp Macky da leen di sous écoute amul bu Touba amul bu Tivaouane amul bu amul bu amul bu Matam ñëpp la maître sous école maara bu yeeg ñëpp Macky da la na maître sous école ay instrument la ñor tek xam nga état sen service de renseignement ñu divulguer ces choses là en public ba no du tukki kenn du ko publier mais ça les permettre de savoir ce qui se passe ça lui permet de savoir kan moo wax lan kan moo def lan kan moo nekk ci lan ak kan moo nekk ci lan loolu moo leen permettre ñu xam lu ñuy rapprocher nit yooyu quoi ñu xam lu xew ci dëkk bi ak lan mooy dox ci dëkk bi quoi Macky Sall du tëdd chaque jour du tëdd te dégloolu yenn enregistrement yi chaque jour du tëddi te seetaanul yenn vidéo yi chaque jour nag laa la wax balaa muy tëdd loolu lay mujjee def nansou daglor enregistrement yi quoi ok bulletin de renseignement bi moom le matin la koy lire mais les instruments sonores guddi la koy déglu sonore ak visuel guddi la koy déglu Ah. Popongen. Residence kena nekk Popongen Macky Sall en ce moment mon fait fay Ben. Ambarkader. embarcadère ambarkader ak débarcadère pour salub bimu jandu quoi bateau bi mu jënd lañ ko foofu la wax nañ ko gaare Pasa ci fan yu ñu jëm wala ci mois yu ñu jëm wala ci semaine yu ñu jëm fréquenté boobu résidence bu baax parce que am ay sangat yu mu fa war a def donc c' est sûr que par bateau la fa bëgg a demee quoi donc travaux yi foofu ñu dëkk ngeen duñ ma bàyyi ma fenn mën ngeen dem ngeen léegi di ngeen gis y' beaucoup de travaux ci palais bi fofu quoi ñu ngi défar pont bi ñu ngi défar port bi fofu quoi petit port lay doon quoi comprendre ay milliards la fa nek di investir pour salu bobu non ta xaliss bobu non xajoon na feneen surtout ci li hôpitaux yi nga xam amul ay lii de rayon mu defon ko fofu mo gën quoi waaw Alioune Sall aussi mu ngi Paris la fa def yëpp wax nañ ko mais loolu ci beneen live la ñuy ñëwaat pour wax ci quoi parce que mungu wan pen isola hôtel bu muy dal bu bëggee dem tëddee ay quelque xale France foofu lay dem quoi melol loolu dinañ ci ñëwaat dinañ ci quoi sama gars yi daañu arrêté live bi ba fan man comme nu ngeen ko xamee rek euh, du may def live chaque jour quoi du may def live aussi chaque semaine aw ma jour bu may def live quoi dama koy def rek heure bu ma amee temps parce que il aussi ngeen comprendre ci couvre-feu dëkk bi may vivre sert quoi? ça sert TROP TROP c'est-à-dire ce cœur, ce leg, ce nom, ce auto, ce assurance, ce téléphone, ce courant, ce nord, ce, gaz, ce essence, ce auto, c'est ce responsable Sénégal. À la uh, fin de mois, c'est des, multimillions de CFA. On parle entre 3-4 millions de CFA par mois. Voilà le que eh? 2 millions et quelques 3 millions dafa cher quoi te loolu mënoo toog rek nii quoi loolu nag quoi du la ko may kenn du la ko sax il faut nga ñaafee ko la sa bopp quoi comprendre nga euh, donc aw ma temps di def live chaque jour quoi parce que damaa bëgg su may def live may wax loo xamante ni danaa amal ñu njëriñ quoi te loolu dafa laaj ay gëstu quoi mooy wax aussi damay bëgg li may wax ma teg ko fu leer quoi comprendre wax lu leer quoi lu ñu mën a comprendre lu preuve quoi comprendre donc voilà maa ngi jégalu mais du ma koy live chaque jour quoi activiste yu bëri ñu ngi rayante seen biir di saagante di teesante comme ay doomi dëmm quoi comprendre man bokkuma ci loolu quoi bokkuma si genre boobu quoi bokkuma ci loolu du ma xarit ak ak ñoom aw ma ak ñoom soxla du ma sax wax ak ñoom xaw ma ci kenn ci ñoom quoi comprendre donc ku nekk na nga combat sa combat a pas mal nekk fii di sonal nit ñi di bëri wax amul rëbb benn njëriñ waxuñ nit ñi toujours lu amul nit ñi njëriñ quoi comprendre à la fin c'est leur personne quoi comme day dof yoo ils amèrent les gens quoi sonal lañ trop mais aussi je pense que ñi leen di déglu aussi ñoom ñoo ko voilà ñoo leen ko quoi à la fin quoi euh, su ma temps rek bu neexee dina dinaa def live ñu continuer combat quoi parce que combat bi continuer lo quoi dafa war continuer amul ay voilà day continuer quoi mais ku si ak ce rythme rek bi nga koy defee ku nang ko defee ak sa rythme rek quoi li jégalu bu baax fileen no uh, remercier di leen jaajëfe di leen ñaanal di leen baal te di leen baalu ak di ñaan aussi yàlla sàmm suñu suñu Sénégal quoi comprendre uh, andi fa jàmm a un président boo xam bëggul jàmm ko mag bëggul jàmm parce que depuis mu toog ay e, comportement am comportement wu dictateur la ko donc buñ ci jógu rek buñ ci ci war a jógee rek du baax quoi jaa ngeen jëf merci yàlla sàmm